عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق أرتلت ويدور دار فردنا فأتى الدور طرقة بجلالها كل أرض سلامه الشمة دلها نور كل النجوم اليوم دعاله ربي وسيد قومك مرجعانه خلق القتل وقبل رساله مصطفى جسمه النوال wax ईशा का इंजील है सा सर्रहा किसमी हुए साल ومن نشأ عجب الله الجمال

yàlla dooli leer moom ci judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la daan tàmbalee ah wala fi dañuy wax na ku ci nga la jiite ñun mooy suñu réserve ba ñu tàmbalee ci julli di wax ne yaaram la ci banu Quraysh la bokk ci banu Hashim ci banu Abdul Muttalib banu Abdul Naaf banu Qusay banu Kilaab daan nañ ko limal ay maamam baaga ci Adama waaye bu demee ba Qusay banu Kilaab daf leen ñu wax ne yem leen yam leen foofu lu ci des kadaba nasaabuuna kadaba nasaabuuna nettali kat histoire yi dugal na ci lu ci bokkul dëkkatuyoo yàlla mi buy nettali taarix dañuy dugal ci biir ay maamam ay tondoom te yàlla moo waxoon ci Alxuraan ne wa fi saajidiin kii yu dal xalam mustajir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo leen doon liim ko ci aadama ba ci abdoulaye ku si jotal xërëm mus ta bokk ci maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nettalkat histoire dañ ciy dugal ay coddo moo tax boo leen daan liim baagu ci Qusay ibn Kilab daf leen xayam leen foofu ndax ñoom ñëpp ne kenn mus ta sujjutal xërëm bon ci banu Quraysh la bok banu Hashim banu Abdul Abdul Muttalib nag mooy maamam ji nga xam ne daanaka loo ci soiram ci moom na tàmbalee ci géntam gi nga xam ne géntoon ne ko ñu ko sa borom na nga gas zam-zam bu xëyee rek jëlale bu yeewaatee rek ñu ne ko sa borom mun a nga gas zam-zam daanaka mu toog lu mat weer bët bu set rek ñu indil ko tur bu bokkut ak ñu ko indiloon bii ah arab yi wax ne ne bëri tur dafay tettale wala dafay wane màggaay lu ñu tudd mu xëy benn bés nag dogu ne ah man de daal lii ma gént ñu digal ma ko bëgg naa koo gas ba ko bëggee waxtaanee. ñi ne ko kat yow dox nga ndekete yoo teelu zam-zam ñu ko suuroon du mat juróomi téeméeri at ca gannaaw ca jamono Qusay ibnu Kilaab xeex bi nga xam ne moo amoon ci diggante xamaaru ati yu ak jur xamoo ne ba métti lool yàlla mi ne ah ñu kat léeg tey ñu faagaagal mi man jeex te buñ jeexee ñii dinañ yóbbu seen alali balaa ci am nañ jël sin alal bi yëpp dugal ko ci teen zam-zam daal di koy suul boobaa bu ñëwee tamit duñ jot alal zam-zam nag boo buggee taarixam mu ngi tàmbalee ci yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Ibrahima amoon na jabaram bu ñuy wax Saalata sëy naag moom juróom-ñaar fukki at juróom amuñu doom. boobu Ibrahima mu ngi am juróom-ñeent fukki at ak juróom Haajara xëy benn bés rek ne ko Ibrahima fi mu ne nii kat seen bi yàgg na te mage naa mënatuma am doom te yow xëy na ba léegi yàlla mën a laa xëy may baax ba nga am doom léegi dama laa bëggoon a may sama jaam bii di Haajara xëy na yàlla may la ci ngir ci njortu rafet boobu mu amoon. yàlla fekk na ko ca ba mu koy may Haajara rek ba mu ànd ak moom rek mu jub jugaar ak biiram muhim bi mu tuddee ko Ismaayil yéenutu yàlla la bàyyi bay siyaan foofu rek ne maam yi ku gën ci mbindeef muy Haajara maam la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ku ñuul la kooku doy na puukare nit ñuul ñi fiir nag dafay fiir moom toogee ñaari at nag saarata gis nga kuy def lu baax mu foog yàlla may la baax boobu mu defoon jox ko yonent yàlla Ibrahima nga ko kii sama jaam la maa ci xol bu rafet ci la fekk ci ngeneen loolu may ko doom jigéen bu am ñaar fukki at jigéen bu am juróom-ñaar fukki at ak juróom di ëmb loolu ci kéemtaani yàlla la mu daal di ëmb di mu tuddee ko Isxaaq ñaari xale yi maa ngi ci kër gi Isxaaq Ismaayil moo ko mag ñaari at ñu nekk ci kër gi xam ngeen ne gone ak moromam bu ñu foo rek Isxaaq duuru Ismaayil Isxaaq moom moo nekkoon doomi Haajara mi nga xam ne moom mooy Ismaayil moom moo nekk. doomi Haajara mi nga xam ne moo nekkoon jaariyatu jaam bi nga xam ne moom la ko mayoon moo doon duma doomi Saarata bu yëf yi bëggee yëpp nag mu ne ko lii nag mënut a te mënut a nekk kii yaayam démb sama jaam rek la woon doomam bu jugee rek ñëw doon sama doom ji loolu du mën a nekk Ibrahima nag du ci fexe mu ne ko kanaa nga génn koo ci kër gi. ñoom ñaar mu ñoo bokk kër gi wala maa moom mu ñoo bokk kër gi te kër gi sama kër la kii rek sama jaam la woon mu daal di koy teg ci gëlëm dem ak moom ba Abdul Xijaaz ca diggante ak Safa ak Marwa mu daal di ko fay wàccee mu nekk àll kattanal boo xam ne dara nekku fa xaajal na ko Ibrahima nga def nii. lu tax nga koy def fii alal ca te la amul ndox amul lekk ker sax amuko ko ay doju neen la Ibrahima daal di koy wan nga naaw faale ko mu daal di koy lent lu ci yàlla da koy Ibrahima fii alal ca la amul ndox amul lekk amul ker ndax lii sa borom moo la ko digal maa ngi ànd ak golo gu daw bu ko fi mar dabee boobaa di nga toog sa borom. mu ne ko waaw sama borom moo ma ko digal mu ne ko ba demal sa borom dañu bàyyi ñoo moom jot la rafet ci yàlla ci la bokk moo tax yàlla fekk na ko ci njortam lu rafet loolu mu amoon ba muy dem rek ëllëg saa rek doomam ji daal di jooy ngeen mar di ŋaaka ñett bëgg a dee ngeen mar xam ngeen ne yaay moo fi gën a jaaxle bu gisee doomam ci jaaxla mu daal di xamatu nu muy def dégg safa xool ndeyjoor càmmoñ ndax dina gis ku ko may ndox du gis kenn mu daal di wàccaat dem marwa di xool ndax dina may dina am ku ko gis ku gis mu may ko ndox du gis kenn loolu la nekkee di jaabante diggante safa marwa ba mu nekk juróom-ñaari ashwaat ci la yàlla yebal jibril ne ko kee nekk diggante safa marwa mooy maam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne moo tax ma bind la moo tax ma sàkk la bu koy màgg lay rek dinaa la faar ci diwaan yonent wala dinaa la faar ci diwaan malaaka mu daal di daw moom Jibril daal di ci peel wàcc ak juróom bi téeméeri mbagg comme ni koy bàyyi waxee juróom benn téeméeri mbagg ñëw dóor suuf si ndox mi ball mu naan nàndal doomam ëllëg saa rek ndox mi di lap di ball di ball ba bëgg la lekk àddina bi borom bi daal di koy yebalaat na ko demal nga dalal ko mu daal di wàccaat ñëw na ko zam zam ñëw jël laa fa mi koy dóor ci ndox mi na ko zam zam zam dalal loolu zam zam boobu nag gën naa bu mballee bañ koy jëriñoo ce xeex bi nga xam ne amoon na ci diggante xamaali côté ak juróomu ne ci nu ko suuree woon nag borom bi nag wax maa ngi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdul Mutalib na ko demal nga gas ko ba ko tàmbalee bu ko gas yaara bi dañ ko doon ree na dox na teen boo xam ne ca jamono ca jamono Qusay ibn Kilaab la kenn waxatuta ay mbiram mu ne daf koy gas ñu ne dox na mu ne bi man daal lii nga digal am naa nisër pour def ko waaye ba ma ci joxoon tettal boobaa dinaa sawar lool pour def ko mu tëdd gént ñu ne ko boo demee sa xilija ci xaram ba ci baaxaan ja ci cof ca diggante ñaari kër yi xorondom ya boo xoolee di nga gis pind bi muy dem gis kër ñaari kër yi xorondom yi dox gis pind bi mu fagas rek daal di gis na ñu ne fii la waa Quraysh na ah, lii kat dafa mel ni dëgg la kat waaye nag am na lu xew mu ne leen lu xew ñu ne ko ah doo ko def yow kese ndax lii boo ko gesee yow kese li nga am woy ci sa kanam yi morom ci say kanam yi nawle woy boo xam ne du far mukk loolu nag duñ la ko bàyyi yow kese lenn rek moo mën a am ñu bokk koo yow gas ko mu ne leen bàyyi leen ñu ko digal man leen ko digal ñu ne ko mukk daam ñu werante ba mu génnee jaasem kooray mu ne leen ah, daf leen nag léegi daal leen seet attekat mu atte ñu ñu ngi dem céchet yoo ci Sham pour mu atte leen ñoom waa Quraysh yëpp sang Quraysh yëpp ànd ak moom yëpp gëlëm ñuy dox di dox ba ci digg àll dëkkate yooyu bàyyi woon ay ndox mi not bu leen yàlla nara nattu ci yoon wi ñu mara mara mara mara mara boo a dee xam ngeen ne taarix day moom tuwaat boppam mar mi nga xam ne moo daloon Israël moo leen dal bu gën a tiis lool lool ñu ne ah daf leen nag ñun kat ñu ñëwee sang màkk fii àllab jota nan la dara ca ndox dara ca lekk te ñun ñooy sang màkk bu ñu fi mar ree dina ñaaw lool ci nettali ndax boobaa dinañ dee mel ni ay mbaam tan yi lekk ñu gaynde yi ñu lekk ñu ci àll bi boobaa dañuy wax ne kat werante rek moo taxoon lii dal ñu te boobaa histoire boobu nettali ko dina ñaaw lool ñu luy pexe ñu ne mooy kenn ku nekk gas pax tëdd ñu ne mekuwaante ku njëkk a dee ñu suul la njëkk a ñu suul la kenn mujj dee ñu bañ koo suul moo gën a rafet ñun ñëpp ñu dee rek mel ni ay mbaam ci yàlla ñu ah loolu pexe la ñu daal di gas pax tëdd ku nekk gas pax tëdd bu toogee ba ca diir Abdou Moutalib jug na leen hee man lii kat xaw ma ko góor du tëdd di nekk dee góor dafay dem ba dee daf ko mu dee mu xam ne ni lii la yàlla àtte ci moom waaye man du ma tëdd di nekk dee ñoom ñu tëdd seen pax yi rek moom mu jug ba muy jub rek war gëlëmam rek bay gëlëmam di seq jéego rek yàlla balal ko fa ndox mu sedd guy mu naan nandal gëlëmal daa leen ee kenn ku nekk seen biir pax ne leen jub leen mbir xaw na kat ñoom ñëpp ñu jub naan nandal seen i gëlëm ñu ne ah bu leen guddeeg mayam ndoor mayam ndoor yii kat kii xam ne yàlla moo ko may ndox mu sedd bii ci àll kettanal bii moo ko may zam-zam bu kenn werante ak moom ñu daal di koy nangul mu daal di gas zam ci yoon wa nag mu ni seet ne lii yëpp ñàkk doole moo ma ko teg ndax boobu kat benn doom la amoon mu ne maa ngi ni seet borom bi may ma fukki doom yu góor ñëpp màgg ba man waxamaane dinaa ci rey kenn santee ko yàlla jàmm ko yàlla nisab googu nag yàlla tax fi ko dëggal ko ba mu toogee yàlla may ko fukki doom yi góor xaaris hamzatu abbas jaafar aqil abu lahab kaccoor bi noonu yàlla bi ci la bokk abdullah yi mooy caat fukki doom yépp màgg ci biir kër gi mu tëdd gént yow ko Abdul Muttalib li ngeen di soroon leen boobu nga def mu ne ah luy loolu ñu ne ko ah yaa ni soroon ne boo amee fukki doom di nga si rey kenn jaamoo ko yàlla te nit ñi kat fukki doom yëpp mën na dañoo bëggoon nga mottali sa nisar gi mu dem ci waa Makka ñu ne ko ah yow kat da ngaa regree rek reyal xar saraxe mu rey xar ñu ne ko ah bëgg leen loo xar mu rey nag. ñu ne ko bëgg ne lopp nag mu rey gëlëm ñu ne ko ah ne lopp gëlëm mu ne ah lopp gëlëm nit jëlee ñu ne ko ah yaa waxoon ne boo amee fukki doom ñëpp dund di nga ci kenn jaamu ko yàlla nisër boobu leen bu nga def mu daal jël jël seen bant yi nga xam ne mu ñëw ci biir kaaba gi ñu tuddee ko la bant caaxaan yooyu nga xam ne képp ku bëgg a tukki boo demee ci moom wante la bu ne la tukkil demal nga dem bu ne la toogal ma toog fekkee ne sax dañuy werante jigéen moom kan moo ko ëmbal bu ñëwee werante ci ñaar bu bant bi dal rek ñu ne ko yow la donte yow doo bàyyam sax noonu leen doon daan def ñu ñëw ci bant bi moo la nga ne doomam yu góor ne def ci kenn kan lay tànn ci ñoom bu wante lii bant bi dal Abdoulaye mën a ah mu wontelewaat moom bant bi dal Abdoulaye mu ne ah, dafa juumaat ba muy ñetti yoon bant bi dal Abdoulaye mu ne ah damaa ko dafa juum yow la yàlla tànn pour ma rey la mu daal di ndogu ndeketewoo leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo moom la ko topp bant bi rek jublu ko rek lool mu dogu ci ne dina ko rey ah waa Quraysh waa Makka ne mukk lii du fi am. doo ñu sosol aadama bon boo xam ne képp ku am fukkati doom fukki doom rek di ci rey kenn jaamu ko yàlla loolu du am mukk leen rek a mën a am mooy nga seet ñu dem ci àttekat yi ñu àtte ñu ñu dem ci àttekat yi ñu ne leen ko rey foofu nit lan mooy diyam ñu ne fukki gëlëm mu ne ko jëlal fukki gëlëm nga teg wontale bont bi dalee gëlëm yi nga bàyyi Abdoulaye nga yàlla na mën a yi bu bont bi dalee Abdoulaye di bàyyi yàlla di bàyyee ba bant bi di bàyyee gëlëm yi wala ba bant bi bàyyi Abdoulaye mu wontale bant bi daal Abdoulaye mu teg gëlëm fukki gëlëm mu wontale waat bant bi daal Abdoulaye mu tegaat fukki ba muy téeméeri gëlëm bant bi door a bàyyi Abdoulaye dem ci gëlëm yi mu jël lépp rey ko jox koy ñeel yàlla mu ne ko Abdoulaye nag goreel Abdoulaye nag daal di gore mu nekk waxtaanu Màkka nag fekk na yahudi ñoom ñoo fi gën a bon ñoo fi gën a jekk sëñ kañaan gi yàgg na lool ñoom ñoo waxoon ne ñooy Chaabullahi Muxtaar ñooy ñi nga xam ne ñoom na yàlla tànn ci peuple bi ñoo ci gën ñu ne dégg leen ci taarix ne li fi tawraat ak Injiil ak Zabuur mboolem téere yàlla yu yàgg yàlla yónni wax ne ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yegsi na te xam ne xam ne ne fi ne nii yonent yàlla moom sallallahu alayhi génn na leen ki nga xam ne moo kese moo dem yonent yi gannaaw benn du ñëw génn na yow génn na saara te yàlla ñu ñu ñu musa yónni yëpp ci yowul leen bokk ñenn ñi ci nasaara la ki nga xam ne moo nar a ñëw gën ci mboolem yonent yi te mooy imaam mboolem yonent yi nar a ci ñoom ñu ne laa loolu mun koo dégg ñu ne la luy si pexe léegi gannaaw yàlla dogal na ñu ne la luñ ci sooy léegi gannaaw nekkul baayam foog ñu nekk ay nijaam léegi nen seet ban kër leen foog ne kër googu foofu la nekk ak ban waxamaane la leer gi nekk ñu jéem a moom ñu daal di jël seeni i jànq yi ak seen i jéebee daal di leen sangu solol leen na leen leer gi daal ci Abdoulaye mii la nekk dam leen ngeen gaaral ko seen bopp bu àndee yéen rek say yéen benn yoon ngeen jokk téeméeri gërëm yi ko jotee woon ñu daal di dem ci moom moom Abdoulaye na ko wax na ko kaay ànd ak man kaay tëdd man. kaay sëy mbaan benn yoon ñu jox la téeméeri lu nekk rek ñu gaaral ko ko di daanu ci kawam ba mujj mu sonn daal di leen saddal ay béyti yi ne leen amal xaraamu fa ma maatu duunahu wal xilla laa xilla fastabinuhu wa kayfa bi amri alladi tabtaxinahu wa dinahu leen ndax lu daf lu xaraam dee sax ndax góor sax dina daf lu xaraam daal di leen saaga wal leen gannaaw dem ci kër dem ci bàyyam na ko ñaari soxla la am ci yow moom foog nga defal ma ci benn ñaari ñooy lan man bu ma génnee jigéen ñi dañ may gaaral seen bopp damay di jaanu sama kaw te man bëgguma njaaloo bëgguma def lu xaram te seytaane dafa bëri doole. te jigéen ñi dañoo bëri seytaane imma nga takkal ma jabar wala nga sant ma service yi nga xam ne moo nekk ci kër yi boobaa dootuma dama di fenn ma lay doxal course yi nekk ci kër gi boobaa mu ci ñoom ñu daal yi koy takkal jabar ci xay bi nu Maxzum moom Abdullahi tànnal ko ku ñuy wax Aminatu bintu Wahbin muy ndey Yonent bi sallallahu mu ànd ak moom ci weeru rajab bi nga xam ne ci la bàyyi juddu ci fukki fan ak juróom-benn ya ci la ànd ak moom leer yenent bi sallallahu alayhi wasallam jugee ci Abdoulaye dem ci Aminat nekk mu ëmb yenent bi sallallahu alayhi wasallam ba amee ñaari weer ci biir yaayam ci la baayam genn àddina mu deseeg leer googu Aminatu mu ne bët bu set yenentu dina ma feeñu wala yenn ci yi dinañ ma feeñu dalee ko ci aadama ba ci Isa mujj ñëw kenn ku nekk rek fay ñu ne ma di wax ne maa ngi lay bëggal ñu ngi lay ñaanal na nga dal na nga tey na xam ne yaa jur sang way njëkk ak way mujj mu ne ah, man daal ñii lu ñu wax xaw ma ko bët bu seet rek yonent dina ko yén dina ko dikkal téeméeri junne ñaar fi junne yonent ak ñeent yëpp dikkal leen ko ci ay wax ci ay digal ñetteelu su leer googu nga xam ne ñoom ñëpp moom leen doon fóogaru moo leen doon yónni comme ni ko yàlla waxee ci alquran wa id axada allahu midaaqa nabiyina lama aataynahu min kitaabin wa hikmatin summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum latu'minnunna bihi wa latansurunnahu qaala aqrartum wa axadtum ala dhaalika isri qaalu aqrarnaa qaala fashhadu wa ana ma'akum mina shaahidiin ñoom ñëpp seede woon ne ne yéen a tudd iman mooy seen njiit mooy seen sang saa yi leen fekkee si yoon yooyu dañoo wàcc ndax moom mooy seen jaati bi ñoom ñëpp wax leen aqaral naa ñu signé ñu tàmpoo ñu daan di leen nommé ñu ay yonent kenn ci ñoom rek bu bañoon ñu faal ci ci diwaanu yonent yi waaye ñoom ñëpp d'accord nee na yonent mooy seen ilimaan ñu soog leen a nommé moo tax ñoom ñëpp fuglu nañ leer googu yonent bi nag nekk ci biir yaayam juróom-ñeenti weer yaayam mu ne moom aminatu mu ne man musuma yëg ne ëmb naa ndax sama yaram musta tàng sama yére xatuñ ma ba ñu ma benn ñam lenn rek moo may xamal nag ëmb naa mooy ne baax bi nga xam ne dinaa ko gis ci weer bu nekk gisatuma ko loolu daal moo ma xamal ne man daal ëmb naa ak ñii may dikkal di may wax ne na nga dal na nga teey na nga xam ne kii ngay indi jigéen mu sukk jur ko ku mel ni moom mu ne ci weeram bu mujj Ibrahim mi nga xam ne mooy xariti yàlla di soppe yàlla dikkal na ko na ko Aminatu maa ngi lay ndokkeel maa ngi lay ñaanal yaa jur sang booy njëkk booy mujj yaa xam ne gannaawam benn téere du yaa jur kii nga xam ne gannaawam benn yonent du wàcc yaa jur ki nga xam ne moo kase mboolem yonent yi gannaawam benn yonent du ñëw gannaawam benn téere du ñëw lenn dootul kët dootul wàcce ci bàyyi ko ci asamaan mu ne man daal ñi xamul ñu wax ci noonu rek Mariam yaay Isa ñëw pour fekke la si mat bi Asiyatu jabar Firawna ñëw julli la woon xool naa nga xam ne ñoo nekkoon biir àddina yëpp ñëw ngir teertu gan gi nga xam ne moom mooy gan bu màgg gi mooy yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam Aminatu mu ne ma am lu ma soxla ci biir néeg bi rek di jóg ñu xotti sama wetu ndeyjoor bi ndekete yoo ci biir yaayam ci leen sang Yonent bi sallallahu alayhi nandal ko solo ko yële gasal ko lépp ñu defal doomu aadama rek defal ne ko ci biir yaayam Yonent bi juddu comme ni doomu aadama yi bi juddu dafa jiital boppam Yonent bi moom tànkam la jiital ci péeru doomu aadama bi juddu. ci diggante ñaari lupp yaayam lay juddoo yonent bi moom dañoo xottoo ci ndeyjoor yaayam mu ci biir fay tànkam doomu aadama buy juddu deret lay àndal yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam moom leer la àndal mu daal ci peelu lu mu njëkk def mooy yoro sujud sujud su yàgg menn mag mu xam yàlla bu mu xippee bu mu siggee daal di tàllal ay loxoom ne allahumma arfaq ala allahumma arfaq ala yow yàlla yàlla nga boole seet su koy yow yàlla yàlla nga boole seet su koy sa ba mu ñetti yoon moom noonu la juddoo daal di tëdd ci yaayam sa ñaari wegsiaan foofu ne bu ko jigéeni ordinaire juree daw ci ko ba na jur naa jinne waaye ndekete yoo kooku yaayam moom da nga koo préparé boo xam ne lépp lu ñëw rek xam na ne lii lan la moo tax mu ànd ak dal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba juddoo àdduna bi yëpp moo leer màkka dafa leer ndax lépp lu kawe woon rek dafa dafa dafa jege suuf biddiw yi dañoo jege suuf weer wi tiim màkka jant bi tiim màkk lépp di leer keroog ba yent bi sallallahu alayhi wa sallam nga naaw yi dañoo naaw jëm day joor yii naaw jëm càmmoon di wax wali den Muhammad wa rabbul bay yii it waa màkk yëpp di ko dégg ak aalam yëpp di koy dégg keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu ci la nii sa bayrata saawa safara si nga xam ne waa islam ñu gën a jaamu safara soosu dafa fay ba benn xal desatu fa nga xam ngeen ne safara soosu kat dafa bëri woon toppatoo lool amoon na junne xamukat amoon na junne taxankat am na junne at yu mustafa yi ngir bëri toppatoo waaye keroog ba yonent bi sallallahu juddu ba si doom safara soosu dafa fay ba benn géej a fa jaar benn xal desatu fa ngir war a màggaay yàlla ndax diina dëgg dëgg mooy diinal islaam diina yooyu yëpp ñu doon jaamu ne ay seen yàlla la safara si seen yàlla la yàlla daf leen woon dooleem ne leen diina kat sa yàlla mooy islaam te ki nga xam ne moo leeral diina ji moo ko nar a leeral moo tax yëfam yëpp dafay leer moo tax mu fay safara soosu ndax diina indallahi islaam ba ma yebta rek lislaam dina fa la yuqbalu minhu képp diine wu diine di amoo diine diine dëgg-dëgg si yàlla diine lislaam la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may ko mucjisa jooju keroog ba muy juddu xam ngeen ne baxaru Kisra wala géeju Kisra dafa fer ba benn toq ndox desatu fa te géej googu tamit wala géeju Furs xam ngeen ne géej googu tamit géej gu mag la woon mel ni océan mag lool ñu koy jàmm géej googu dafa fer keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu maam Abdul Mutalib dem na ci yaaru Kaaba gi di ñaanal yàlla Aminata yàlla may mag bu sedd yàlla may dem di barke mu ne muy ñaan di ñaan di ñaan dara woo ko ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul Kaaba gi moo parpari jëm la joor parpari jëm càmmoñ di wax wuli den Muhammad wa rabbul bayt waa mag yëpp di koy dégg kaaba gi nga xam ne moo nekk xeer woo kongo moo fecc di fecc di fecc di wane ne yonent bi sallallahu alayhi na lu tax muy bég ci loola mooy ne biir kaaba gi ay asnaam yoo xam ne ñu ngi ko tabax na seeni yàlla la moom la ñuy jaamu moo nekk ci biir lu man ñetti téeméeri yàlla lu teg ñu fa ñu tuddee kook ay laataak manaataak gubal loo xalaat ci tuur yi rek tuddee nañ ko seen yàlla yi kaaba gi nag dafa bég ne yàlla yëpp keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaamee fatax makka dinañ fi bàyyi ko ndax yonent bi mu nga xam ne moo ñaa indi diine islam moo ñëw leeral diine ji moo fi nar a jëlee mboolem asnaam yi yàlla teral na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba muy juddu kenn fanaanu ci kaw lal benn buur fanaanu ci kaw ku samp sa ba foog na yaa nga ci rek la daal di boo soppee rek sa daal di solo bi daal di des mujj si ñu ah, kat lii lu xew ñi lan la ñu ne waaw ah jàngoon nañ ci si téere yi ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yegsi na bon yëpp ay mandarga la yoo xam ne mooy mandarga si ñoom ñëpp dañoo fanaan ci kaw dañoo fanaan ci suuf yonent bi rek moo fanaan ci kaw teraanga jooju yàlla jëg la na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo asru kisra na fukki fett ak ñeent comme ni ko yooyu lu mooy ne seen seen nguur gi fukki buur ak ñeent moo leen dese te xam nga kasru xasru boobu nag muy pale boobu pale bu dëgëra dëgëra la am na junne at musta fett ngir dëgëraay ngir garanti bi nga xam ne garanti na waaye yàlla daf leen wanee seen nguur gëne ni kat jeex na nguur yi dëgg-dëgg ci yàlla mooy lislaam bu jeex na ah, fukki buur ak ñeent moom des na loolu xëy na sin set sin sin maam mataar yi la yeeg seegul léegi ndekete yoo buur yi dañuy tegalantoo ku jël faru ak diir rek daal di dee keneen teguwaat ba lii ne lislaam daal yëkkatiku loolu moo xew ci judde yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay karaama ci ay mu'jiza te na yeneen ak yeneen yoo xam ne xew na ca keroog bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam juddoo ndey Aysa tagg na ko gannaaw loolu ba mu déggee karaama yi nga xam ne ca ngir wane mbégteem ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne ko xuliqta mubarran min kulli aybin ka annaka xuliqta kamaa tashaa'u wa xayru minka lam turaqqa 'ayni wa ajallu minka lam talidhu nisaa'u ko rafetee ni yow jigéen su ko indi ku taaroon yow jigéen mosu ko indi yaa ñëw mel ni na a neex ci taar ci baax ci laabiir ci lépp loo xam ne ne yàlla yow la ko jegeleel moom yonent bi sallallahu loolu yëpp day wane màggaay gi xam ne na ko ci yàlla màggaay yooyu yëpp bokk na ca yàlla teral na ko may na ko teraanga yoo xam ne amul kenn ku ko am ci may ci yonent yi donte yonent yi yëpp moo leen doon tëbb ay may may yi nga xam ne am nañ ko ci ay mojisa dalee ko ci aadama ba ci isa mi nga xam ne daf daan dekkil nit ku dee ku moom mu wax loola ku feebar bu la laayee rek nga wér yooyu mojisa yooyu yëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko doon tëbee waaye yàlla yemalu di koy jox ay mojisa waaye daf ko may ay may yoo xam ne amul benn yonent bu am may yooyu bokk na ci rek may yi nga xam ne ñun ñëpp moom lañ yaakaar te mu mii moo koy maye mooy borom shafaatul uzma mooy ramu jaam yi amul benn yonent bu mën a ramu ay jaamam kurul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yëpp ku si nekk rek boo taxawee bés penc da ngay wax ne ah man am na kat jumte yu ma defoon ndax jéggal leen ma yonent bi rek la yàlla jox li waawul hamd moom la jox borom shafaatul uzma moom la jox wasiratu moom la jox kawsaratu shafaa mooy lan mooy rombu jaam yi juróom-ñaari caabi aljana ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay teg képp ko gis bis penc yow na safara di nga aljana waaye tamit képp ko gis penc dox ba naan ci zam ba naan ci kaw soratu boobu nga xam ne mooy ndox wala xawdun fil janna comme na ko yàlla waxee ci alxuraan innaa a'taynaaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shaani'aka huwa al kawsaratu boobu mu ne naxarun fil janna la géej la ci biir aljana mu ne nu mel ndoxam bi mu ngi mel ni lem bu bi mu mel ni lem bu meelal meew xet bi mu ngi mel ni miskul asfar mu ne képp ku naan ci meew boobu wala ci kawsaratu boobu di nga dox ba jën ak jëmu yàlla ji te rek des penc du ko nekk mooy jën ak jëmu yàlla waaye yàlla képp ku baaxee ba nga naan ci kaw soosu googu di nga dem ba jëm ak jëmm yàlla ji yàlla may na ko wasilatu wasilatu may lan muy ala manzilatu fil janna mooy néeg bu gën a kawe aljana kenn du ko am ku kenn du ko yàlla yàlla joxul ko kenn ku dut yonent bi sallallahu alayhi waaye baaxee na ci xeetam yonent bi lu ma ko yàlla di yox yépp terewul ne képp bugg a bokk ak man néeg boobu boo déggee kuy nodd rek na nga nodd rek ak moom ونشهد بن الله أكبر من الله أكبر ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله بن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بن حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من أبو نور دي خير جاني نيان بي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث الله مقام محمود الذي يعطل innaka laa tuxliful miiaad mu ne képp ku jàng ñaan gi ndax wa mina al-layli fatahajjad bihi naafilatan laka asaa an yab'athaka an yab'athaka rabbuka maqaama mahmuudan maqaama mahmuudan boobu mooy wasilatul uzmaa mooy a'laa manzilatin fil janna mu ne képp ku jàng ñaan gi yow di nga dem di nga bokk ak man aljana ca yu gën a kawee ca wasilatu yàlla nañu ci yàlla boole te lii moo ñi tax nit ki bokk ca ndax gàmmu nekkul lenn lu dul wane sa cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala sa bëggeel ndax benn bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog ne ishtaqtu ila ahbaabi ñu ne ko ah alasna ahbaabaka ya rasulallah ndax ñun duñ say soppee ndax duñ say xarit mu ne laa antum ashaabi yi samay saxaaba ngeen amma ahbaab yi nag samay soppee mooy ñi nga xam ne dina ñëw sama gannaaw bëgg ma comme na ngeen ma bëggee ñooñ ñooy sax ñoom laa namm kon yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañu namm ndax jaay neen seen lal yi joxe neen seen alal jaay neen seen lépp jaay neen seen nelaw yi toog ci keppaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir wane seen ci moom ci mbëggeel ci moom di jaarale ko ci buntu yonent bu jënal jaarale ko ci buntu Mawlana Cheikh al Islam xaaji daal si nga xam ne moo ñu xamal naka la ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla nañu yàlla dëggal loolu yàlla nañu yàlla boole ci ñëwoon yàlla nañu yàlla boole ci seen barsax gannaaw fan bu gudd ànd ak wér saxal ñu seen bëggeel ci ñoom allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المختار العظيم kon microphone bi muy jëm ci Mouhamed Ndao ñu ngi bëggee lool. na fi loo xam ne nii ku dul bàyyi ñes te ak ñu ko sant ñu ko gërëm ñu ko wax jërëjëf waaye ñu ngi ànd ak Cheikh Baye Hadi fii wut na bàyyam wut na bàyyam si Aliou Ndaw wut na bàyyam si waa dëkk bi wut na bàyyam si tund ñu ko sant ñu ko gërëm ñu ngi sant su rak suñu alkaali dëkk bi Cheikh Moustapha Bey ñu ko sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ngeen ñaanal suñu sëriñ bi Cheikh Laye Balka Touré yéen na ko yàlla dimbale xaar ko xaaral njabootam ñun kontaan nañ tey dégg naa suñu bi de Satu Diagne mu jàngal lu neex boo xam ne tey da ko nekk sa xol fiir ñu ko sant di ko gërëm ak ay rakam yéen yàlla jubale leen bu baax waaye Sëriñ Aliou Ndaw war na jërëjëfee Cheikh Mouhamadul Haadi Ibrahima Niass war na la guddi war na la bëccëg bu ñu bu waree ñun ñëpp man de maa ngi ànd ak sumay jarbaat ak sumay doom si soppe Cheikh Mouhamadul Haadi Ibrahima Niass yaakaar naa ne dëkk bi allah akbar ñu ngi euh, sargal suñu mbokk Diallo ñu mën jàppante ñun ñëpp moo ñu may fit. moo ànd a ñun ci teranga boo xam ne ba béykat bu ko yàlla moomee. musta tardé kenn ku ne encouragé na la dugal si téere tuuti boo xam ne doo xam fan nga ko génne yéen la bi ma bëgg wax ñoom mooy xale yii nga xam ne ñooy soppe si Mamadou Hadi Ibrahima Niass man ñooñu laa àndal te wóor na wala ñoom la àndal alikaale ñoom la àndal Serigne Aliou Ndao ñoo a engagé ak mbooleem ku nekk si biir tànta bi fii yàlla yi ñuy ñëpp xamul si xamul kenn kenn si koo suuf mu Sénégal Gambia Sénégal ku nan mu wax dëgg rek xamul kenn ku du Sénégal ci tey yaay suñu Cheikh Mouhamadou Halim Gamnes yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla la fan la cat Serigne kontaan nañ baax maa laa seetal ne def nga suñu suñu kol yi loo xam ne nii du la mu sa fàtte benn tukki yoo xam ne ne man tëdd naa juróom-ñetti weer eeg moos maa ngi tëdd sëriñ bii moo ma yëkkati yóbbu ma faj na ba tey moom ma taxaw sa mbooloo di wax yal na ko yàlla fay dafa lu ma ko man sax Cheikh Mamadou Hadi Ibrahima ñëf la ko defal waaye yéen ko bàyyi barke maam ala gabla al xabir yàlla barkeel ko barkeel njabootam yàlla may ko njaboot bu béy sëriñ man dëkk bi fii gàmmoo tànta fii si dëkk bi fii bokk naa si ñu ko fi jëkk a def kër kàppir fii paalaji baabu ndaw baax na baax boo xam kenn mënu ko jar baatam muuru duur boo ko doon may daaya mu ne ko ah, man tam bu ko jaay dama nga yaatal ko rek man suma xol dafa nangu si kar rek fexal nu mu gën a yaatoo mu ànd ak suñu xale yi ba pare si xaalis ndaw ñëw féete seen mari Fatou Diallo ñu féete mu tukki dam Fuuta mu ne léegi kon naka la def man ko sa fii mu ne def na mu ànd ak dem si bayu la bayu la ne ko kañ fan la naka la moo ko mu ne ko lu ma yóbbu nag sëñ ne ko Ousmane bi la la yóbbu mu ñëw jël si ko nga ànd ak moom kaay moom boo si lii laa ne nekk coopération kii yoon bii nii yoon moom naxari laa gis kenn mënut a dugg si kaw yu toog kenn fa mënu fa toog xale yi toogoon su ko toogee dama lay yëgati ma ne taawal ne ma fayal leen seen paas kilifa yi mu ànd ak daanaka kàttu ñu toog si portoom yi. xanaa man jaay ñu fi nekk dañ jël saret dam jël ñu si koros la bu duggee ñëw si ngatal la paa bi toog ngatal ñëw fii mu moo taa fii ñetti mu dugg si biir xar xar bu mu jàkk tër mu ne bor bi lakkal leen ko balaa suñu nekk suñu xaram mu lakk ko mun ko ndékkee mun ko lu keroog beneen bés la fii beneen bés la fii kàddu bi dem ba si sëriñ bi sëriñ la ne ko naara may ba yónnee fa maam dem ba caam maam dem ba ñëw fii lu mu yëkkati si biir Conakry wala feneen ak feneen lu mu yëkkati rek sa yëngu la daj ko bépp ko ba mu set tegal ko mu ne ko nii la mu ko nii la béppoo set loolu sa barke barke maam Nuur dina lii ñëw ak fii suñuy seen kii kii kàddu bi ñu ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla. góor boobu dem naa moom dem na moom dama la wax léegi lu ma mën a waxee ma ne suñu Ousmane Diouf moo war waaw loolu doon na war toog na yàlla moo la jàkka yóbbu gàmm bu ma duggee biir gàmm daal maa ko jàkka yóbbu gàmm fii daa ko yóbbu gàmm moom ñu tëral ko ko lu ngeen defal nañ ko dem na toolu di gàttal mu ne muy wax ne suñu Ousmane Diouf moo woon loolu du ko waral dama ko wax si mbooloo waaye ñun ñëpp xam nañ ko waaye sëriñ bi ñu ngi sant waa Kéem Kàddu di leen gërëm di leen ñaanal yàlla lii yéen a sax lii yéen a sax lii yéen a sax ñun dañ fas yéene ànd ak yéen ak suñu doom suñu sët yi ñu yow leen xam yow leen gis yow leen xàngal kon ñu ko benn des mu rek war naay nan la ko wax man mënu maa wax suba kan neexut ñoo ko bi neexut ak ñaawaay bu rëy ba baax a ko ñëwee waaye dinaa wax ni ñu ne man suma dund suma dee buur ji la boolu ma koo lenn waay waay jàppale sëriñ ndaw yi rek kii seen kii seen kii seen classmate la yéen ñëpp xam na ne kii seen classmate la ànd leen ak moom dimbalante leen ak moom seen njëriñ ñu fi nekkoon àndoon ak sëriñaar yi ñun ñun ñun ne dañ dañ leen uut wala ñu puusante yéen si sëriñ bi dañ leen a tooñ lii yéen ko moom jàppale bu dëgër nekkul si gannaaw si kanam leen rek kanam kanam rek laa def te boo tax a di mbir na bàyyi des sët la du doom waaye lu bàyyi lu sant baayoo bàyyi lu la sant moom lañ ko sant baayoo bàyyi lu ko teg si loxo moom lañ teg si loxo yéen nañu ko yàlla defal cat yéen na ko yàlla dimbali yéen na ko yàlla aar su ma wax gudd na lool ci njëriñ waaye dama bëgg ne ndaw yii nga xam ne man ñoo ngi la àndal da ko jëlee Ousmane Camara ñoom Samba Touré ak groupe xale yëpp maa leen sant leen gërëm lu tax ma topp leen bugg a ma bugg leen di ànd ak bu dee bëccëg lii dafa dafa doy ne déedéet su ma su ma sët lañ wante nag dañ ne soppi Seex laaj ne loolu na ñu war seen biir mu ñëw jiite ma jooma suma borom loolu laa bugg kon ñu fi nekk gaaw leen mbir maa ngi nii lépp lu ñu sëriñaane wax am na sëriñaane bu ñoo jël yow moom bi lépp di ko xam boobu alaaji mu ngi yow xam nga sëriñaane ne ñaata resteur bu ñëw suñu kër boobu ñu ngeen wax sax amaguñ kër sax keroog bu ñu ko waxee ne man de dama bëggoon nga nga suñu kër gars lu am na bu ko la waa fii ngeen ñoom mu ngeen a yóbbu sëriñaane man loolu lañ ma wax di xam nga si dara yow kii xam na si dara ñoom Sadio kon kon xam na si dara ñoom ñëpp bu ñu ko waaj a waxee rek du mun a ñëw du ñëw ñun ñun xamul ne def surtout maa ngi lay jàllale ministre la woon Bandia mu ne ma yow est-ce que yaa ngi wér parce que gars yi ñun ci li muy nii da nga fi des regarde boobu ah ah da ngeen su ma xam ma ne ko yow yaa ma gën a yore di xaaral rek moo ko bañ ndongo boo ko may bañ ndongo bañ ndongo ne ma. wala dina ñëw man war mu ne ma dina ñëw man ma ne nag suñu sëriñ sëriñ Talla mu si kër moo far dina ko mu xaar ko fii mu ñëw nuyante ak moom mun naa am sëriñ bi du ñu xam lu bëri waaye xam na sëriñ naa sëriñ Talla suñ tuuti rek xapas foo rek mu nga am ne benn bawol bawol bees bu green ñu seetlu bés baa ngay ñëw kër Alaaji Babacar Sall dañ doon luwaas fees yaa sàkkat yaa yëpp daaji nañ ko sànni fale yàlla bu ma ànd ko si dëkk bi li am na benn waaye mooy bu gars yi di jàpp soxna te ko puus di génne mooy sànq jàpp moo kii ak keneen ak keneen ak keneen te mu a yi kenn amul ay garab dafa yor de ma xool man ma yow du la jot man ko yaa yaari lii mën a wax fu ngeen ko jëlee nekk mu leen dee lii man a ko nekkoon man laa baabu jàll bii boo alaaj bi mu ngi saw ay yoon yi yoon yi yoon yi yoon ko yow ñu jëlee woon si sëriñaa yi dañ leen diine lu ëpp loolu ngeen jëlee ko si Cheikh Baye Adama ñun moom lañ jëlee ku daa faj ordonnance Sénégal juróom benn junne la fukki junne ñaar fukki junne ku la faj juróom-ñetti weer sopp sa lekk man du ma doon lekk xamal da nga ko tere waaw kat boole maa moom wala gàtta moom may lekk lu ko lu ma neex la may may ko def guddi ak bëccëg du ma lekk maam eight eight eight months kooku du ma raam si gannaawam dem ma dee nakkuɓe suka sikal jof dumram siganam ɗumde nda sumaɗandoro dumram siganam ɗumde on ker katim dimbala nema gen dimbala sabobo ɗumram siganam karabaji ɓenno kerɗe par ɓena ɓen ɓenno ko figana jagal ɓe ñun ñun la toppe danga yow ñun danga war a topp guddi danga war a topp becc becce suñu doom dañ war a topp say doom suñu seet dañ war a topp sa seet ɓenno kay dañ loolu la ñu yàlla nattoo kuréel bii dañ ñëw pour toppe rek ñun dee laa ñu bindee topp ci seen gannaaw kon nag sëriñ li ma la doon wax la rek walaay du may tànn ma wax ne ma damaa tànn de waaye dama lay maa ngi ñaan si ñaar yi dina nangu walaay tànn dama bëgg rek su ma naaw su ma naaw naawlee ñu ànd ak man si lu ma def su ma naawlee dama bëgg a ñëw nag suma sëriñ si lu mu def kenn de lu loola baawul kenn de lu mën naa la lu deful daal sëriñ ak sëriñ Talla nii la nga gis suñu sëriñ. ومن علينا بأن أرسل إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به أمم قبلنا وخصنا به وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنزله عليه وبلغنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walaw kariha almushrikuun salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala aalihi wa ashaabihi alhaadiina almuhtadiin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin wa ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi Kër Kaatim góor ak jigéen mag ak ndaw gan ak dëkk ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen turam ak santam di kontaan bu baax ci jotaay tey bii di kontaan bu baax tamit ci jotaay yi ko jiitu démb waaye rawatina tey tey ku ñëw ci kër Kaatim di nga xam ne xaal bu métti moo fi am mbégte mu métti moo fi am waaye mbégte bi yëpp. bànneex la boo xam ne day wane bëggeel ak tëkk sànq tert bi ngeen ma fi tert dem naa fu nekk ñu tertu ngir bàyyi dem naa fu nekk ñu tertu ma ngir jëmm Cheikh Mohamad Hadi waaye tert bii ma am fii tey mosuma ko am fenn wala jafe na lool loolu lu ko waral mooy Pastef ak dëggu duñ ci gis it bopp wax naa ko sànq ci teert bi bu egsee bàyyi ngeen i xenc ci ñun kollëre moo tax ngeen i feddali nu ngeen ko daan defee ci kanam sañ aar yi daan dóor ay fetal sax ngir wane seen mbégte waaye lu ngeen def tey moo raw dóor ay fetal sax ku ñëw tey xam na ne dëkk bi yokk na ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu alkaali di nuyu imam waaye di nuyu sëñ Aliou Ndaw mi nga xam ne mooy xalifa alaaji Baabu Ndaw ñu koy nuyu ñu koy ziyaara ñu koy wàccee wàccuwaayam di bég lool ci bennoo bi nga xam ne tey bennoo nañ ko muy bennoo dëkk muy bennoo ci yàlla te la yàlla bëgg kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci jotaay tey bii nga xam ne mbégte yàlla mu ngi ci yàlla ñaan ñu bennoo rek la bëgg ndax moo wax innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqu llaha laallakum turhamuun yemul foofu sax dem na ba ne yaa yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mu ngi wax ci biir ne laa taxaasadu wa laa tabaaxadu wa laa tanaajashu ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وكرهتموه comme ni ko xadis ñëwee indi ko ñu ngi yàlla bu baax ci kàndoo gii nga xam ne kàndoo nañ ko waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla saxal loolu di nuyu di ndokkeel alaaji Babou Touré ñi nga xam ne liggéey na ci liggéey bu yaatu moom ak ñu àndal rawatina ki nga xam ne moo ñu gungee ci jotaay bi wax fi kàddu yéeme yii nga xam ne wax na ko fi du caalit de waaye kàddu démb la kàddu dëggu la kàddu mbëggeel la mu Cheikh Ousmane Diouf sëñ Ousmane Diouf wallahi man boo waxee ci yow tam ma catu la te bëgguma laa catu Ousmane yow man damaa judd rek xàmmee la ci Cheikh Mamadou Hadi lépp lu rafet ci teraanga defal nga bokk ba may tuut tànk dañuy wax ne xale du fàtte loolu dëgg la de man de xam naa ci dara lépp lu ma Ousmane Diouf defal ba xam naa ba may nekk tuut tànk lu nekk la ma daan ni yére tàngal biskit lu nekk rek ni ma ko loolu nag daggut ba tey jii ba tax na lii ma ko defal wallahi lu tuuti la ci lu ma ko war a defal fay ma ko dara teraanga ji ma lebaloon la ma ciy jéematu di koy fay waaye mosuma koo fay te ko matal ma léegi wàccut heure bu nekk rek mu ngi may taxaw taxaw waaye boo xam ne keroog mu ma fekkee métit bii wallahi toog naa ay fan mënumaa nelaw dafa mel ni man la dal dafa mel ni sama waajur la dal ma tax ma jéem ci yàlla may ma ci ndam wallahi lépp yàlla la alhamdulilah bu ñu ci yàlla may ndam yàlla na ko yàlla yokku wér yàlla yàlla guddal fanam amma alaaji baabu nag shabaab yi nga booleeg man te yàgg koo def lépp lu baax rek yaa ngi koy xëcc li koy xëcc li ko ko Cheikh Mamadou Hadi muy nag bunt bu yaatu muy bunt bu dëgër muy bunt boo xam ne bunte bu ngërmaane bàyyi la yàgg naa wax ne buntu bàyyi bëri neen lool buntu boo jaar di nga àgg boo jaaree buntu kër Alaaji Abdoulaye di nga boo jaaree buntu kër Cheikh Ahmad Dam di boo jaaree buntu Cheikh Mouhamad Nazir Cheikh alxalifa Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass yal na yàlla guddal faram yal ko yàlla may wér yal na ko yàlla doole si jàmm fépp foo jaar ci buntu yi di nga waaye kenn du sikki sàkk ne boo jaaree ci buntu Cheikh Mouhamad Hadi buntu la bu yaatu yaatu boo xam ne boo ko jaaree di nga àgg ci bàyyi dañoo jot sa càkkutéef yépp ngir liggéey bu yaatu bu rëy boo xam ne sëñ aali liggéey na ko bàyyi buñ ko doon lim tey du jeex am na lu ma si jot a mos tuuti fële ca Gàmbi ñëpp dégg ko bokk na ci ku sëñ aadi ku ye- ku bàyyi njëkk mujj gërëm ci kaw suuf mooy sëñ aadi sëñ aadi feebar na imaam Asan seet ko mën a ko ñaanal ma imaam na ko si imaam na sa ñaata da ngaa baax rek waaye ku ma dàq ñaan gën maa man ñaan gën maa jotale ñaan moo la ñaanal ca London toog naa ca fan yu mujj ci bàyyi ci laxasaat yu mujj mu ne ma ool ma sa ñaati ma foog na lu nekk la te boo bàyyi mu ngi tàggatoo mu ne ool ma sa ñaati ma gërëm ko ñaanal ko yàlla imam mu ne mu composé ordinateur bàyyi tee téléphone bi mu ne mu teel bàyyi téléphone bi bàyyi tee di wax ak sa ñaar di koy ñaanal di koy ñaanal maa ngi lu nekk mu limal ko di ko ñaanal ba ma ba bàyyi mën a tut mën a ko di bàyyi defal na la ko teraanga jooju teraanga gën koo rëy ba kooku làq na ngir maa leen bàyyi dañu ci liggéeyal bàyyi ci kaw suuf bu bàyyi koo fi mu gën a rafetal liggéey boobu ci lan ci taalibe yi fépp fu mu di nekk mu uyu leen dundal bàyyi ci yéen ngeen xëñ ci bàyyi ci moom bu fa benn taaliba nekkee sax foo na ko damaa bëgg bi waxtaan fa kenn ku nekk gis ci boppam lu mu taal ci fayda bi fii ci Sénégal amul kenn ku ko taal yàlla baaxewoon na ko ci kanam bi bàyyam bàyyi teel koo jox ndigal na ko demal ci rajo Kaolack nga fay jox joxe xam-xam doom yi bàyyi bëri neen de ci média lay wax ci Alfayda laay wax ñëpp yàlla may na leen xam-xam waaye sëñ aadi la bàyyi mayoon ndigal na ko demal ci rajo Kaolack nga fay joxe émission tontu bataaxal ci kaw laay wax siñ aadi moo njëkk a def tontu bataaxal ci seen ci rajo Sénégal ba kenn ku nekk roy ci moom ci loolu. bàyyi na ko boo demee bul wax sama bàyyi nangam sama maam nangam waxal yonentu rek yàlla ndax àddina bi yëpp ngay wax ak kenn ku nekk dafa war a gis sa bopp ci xam-xam bi ngay joxe mu ne ko nag boo demee ba xamoo luñ la laaj nga noppi lii la ko bàyyi jebee muy dem di tontu bataaxal bu ñu bëri foogoon ne na si ñaar yi mooy taaw bàyyi ngir siiw mu siiw ci rajo yi ci média yi waaye yàlla def na mooy juróom benneeli doomam bu góor rek mu nekk di liggéey nekk ci doon bàyyi fu bàyyi di dugg ci biir tund Sénégal gii mu ànd ak moom ñi teg xeer jumaa mu ñëw jàppale ko ci xeer bi bàyyi na ko jàngal nangam mu jàng nangam ñu teg fu ñu tijji jumaa mu ñëw téel ko fu muy gàmm mu ñëw toog ci ronam bàyyi yàlla baaxee na sa ñaari mos la tànde gàmm lu nekk Égypte yépp di jàng bu weeru gàmmu jotaan dafay bàyyi léppam ñëw teew ci kanam yu bàyyi bu ko fekkee ci examen sax dafay dafay bàyyi examen yi ñëw ñëw ci kanam bàyyi yàlla daf ko nattoon ay bët ba ko sëñ aad bu ko bàyyi fekkee xaayara bëta mi soro ko loolu mu ne kaay ànd ak man lépp lu war a xam man dinaa la ko xamal mu ne ko si doon lool waaye amoon ci moom yaakaar lool buggutoon mu ko rek mu ko jël see ba indi ko rek ku muy yónni keneen lay yónni waaye du yónni sa ñaar yémi bés nag yàlla nattu ko du nattu sax doomam yu bari mu yëgal leen te am benn cas urgence rek yoon bu bindal ko leetar na ko demal mayu ma la fa ñaari fan nag mu bind ci leetar bi nag yéen maa ngi leen sama doom sëñ Ali lii ma yebal ko bu leen ko fa tënk damaa bëgg ngeen teel ko yeewi bugguma mu am ko gën te ndax kii dama koo soxla sama benn bugguma mu sori ma ko kooku mooy Cheikh Mamadou Hadj mi nga xam ne moo doon ñëw fii daan fi góor bu baax bu mag nga xam ne moom la ñuy ziyaaral waaye moom la ñuy defal gàmm muy góor bu baax wax nañ ci moom ci ay taarix ci bëgg lu baaxam donte lu ko yàlla may yépp ci ay xar baax waaye dafa jëloon lépp teg fële bu sañ aadi ñëwaan mooy jëlal boppam satalay day koy xool di koy di koy service di koy lalal napp di koy defal lu nekk sañ aadi ba ko déedéet bàyyil gën nañu defal mu ne déedéet boo fi bàyyi ko nag ñoom ñoo ma koy defal waaye gannaaw yaa ngi fi bàyyi laay ci yow loolu la mu daan xëytu lu baax ba lu baax ñi fekk ko fi tey ñu koy ziyaaral ziyaara boo xam ne yàlla rek tax moo tax ñu def ko te ziyaara nit ki du ci jëlee lu dul ñaari maqaama yi siyaada ak ziyaada ak càng ak dooleem ñuy màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi ci bàyyi mi nga xam ne moo doon yonent bi ko ci léppam nag ndax moo ñuy wax ne maal xaq xaalaatu aminika xaalati maa almustafa almuxtaari nuuru abaatini yuwaxiduhu walxaqu yudi salaatahu alayhi wa hudi naxwahu bilmadaar man nu ma mel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko bëggee xam na nga xam nu yonent bi mel ak yàlla yonent bi nu mel ak yàlla yonent bi dafay jaamu yàlla dañ kaa sàkkal bokkaale yàlla nu mel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafay dund si yonent bi moom ak ay malaakam mu ne ma man bàyyi noonu la yonent bi rek dangay tab yonent bi rek tab yonent bi rek yàlla dafay julli si yonent bi yonent bi dafay jaamu yàlla man nag dafay julli si yonent bi du koy tagg tagg moo xam ne du tagg mukk dama koy tagg di dund sama dund yëpp jox naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di koy tagg samay waxtu yëpp jox naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di koy tagg ba waxtu ma saati saraftu li zikri salatan wa matxan mbiitu fas suuf si jëlee ma samay waxtu samay saa yëpp jox naa ko mbiitam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama dund yëpp jeexal naa ko ci tam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba àttekat bi yëpp képp ku ñëw rek nangul nga ne ma ne man maay gën a mën a tam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf safaali alqaadi xubbu wa mubarizu bi anni mujalli fi mahabbati ahmadi lidalika nag aqdi fi lwujudi bi asrihi tadaasul lil ablaaki gayra mukandadi gayra mukandadi mu ne àttekat bi ñépp bu taxawee di tag yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay jikkoom ci ay meloom man bàyyi bu ma taxawee di koy tagg rek dafa newee kanaa yow na nga jamono ko yonent bi na koo xam yaa ngi koy melal mel ni yaa ngi nekk moom yaa ngi dund ak moom te feelan loolu mooy li am kooku mooy Mawlana Cheikh Lislam Hadj Ibrahima li nga xam ne dem na ba màgget am ngàntal loolu yëpp mën a dee déedéet lu ma foofu dafay continuer rek di teg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam donte wax nañ ne sama ngant moo gën a leer jant may man ma dañ mukk di teg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi fekk maa rek dinaa continuer di teg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ma dee sax ban suul sama jëmm ji damay continuer di teg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di leen teetil anwaaru an def بقي دم تاتي الانوار عن جفن جثتي بقيت به احيا ليوم اللقاء bu demee ba suuf sama jëmm ji bu foog ne bu jeex na sax maa ngi continuer di tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci benn suuf ba keroog ba may taxaw bés bee ci sama dund dem naa ba jeexal dem naa ba màgget ñu ne ma am nga gàllankoor yonent bi sallallahu alayhi wasallam tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen déedéet mu ne yaquluna laa taxruj li suqmin wa mahramin wa udruka min shamsi dhahirati aw taxu وقلت شفاء سقم وقوف ببابه عن الطب يغنيني كما ظل يجرح أخرج للراحة والناس كلهم يروح ويغدو للحبيب ويفلح آترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة من لي بذلك ينصح ñu ne damaa feebar damaa màgget sama gànt moo gën a leer jant ma ne leen mukk man doy na ma sama saafara feebar rek ba taxaw ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di koy tagg comme nu ma ko daan tëggee jamono ji may dund comme nu ma ko daan tëggee jamono ji may am xaayawiya wa jamono ji may am nashaat noonu laa koy continuer ndax xol du feebar mukk mu ne nag ñu ne ko nag sa ngant moo gën a leer jant mu ne leen képp ku taxaw ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu ko dinañ ko wax na ko diw sàngam ci dëkk sàngam mu ngi lay nuyu delloo ko nuyoo waaye ku mel ni bàyyi kan ma ko fay présenté kenn du ko présenté na xaal boobu xam na ko yonent bi xam na ko ndax wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nommé na ko muy ambassadeur ci mboolem kaayinaat gannaaw koo nommé kay mu nekk sa xalifa nekk sa ambassadeur fu foo dox mu dox ànd ak yow yaa saara xëy naa surtout waaw xale yowoon fan la seen bàyyi la kenn du ko laaj tey nag duñ guddal waxtaan ndax dañoo bëgg a siira dañ leen a bëgg a gàmmal gàmm gu neex ba ngeen bëgg ndax yelloo ngeen ko ci seen i activité yelloo ngeen ko ci seen i taxawaay te kàddu yi fi jugagum bëri na bon dañuy jox Mouhamed mu ñëw ci mawlidu rasul sallallahu alayhi wa sallam ci guddi juddu yonent bi wa sallam daaw waxtaane neen ci leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag dañuy ñëw ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay karaama ay mujiza yi nga xam na xew na ca pour ñu waxtaan ci ba ñëpp bég xam naa ne loolu mooy bëggloo Ousmane Diop mii ndax gis naa nu mu bëggee xale yi gis naa nu mu leen ombatee jëmale leen fan jëmale leen bu baax fu am yaakaar ndax yàlla du def ci bar teraanga ak barke ak naataange ak nangu ñaan ba ñëpp xam ko mu jële ko te nekk xam na buntub Cheikh Mamadou Hadi mooy buntub nangu ñaan ndax amul kenn kuy taxaw ci buntu këram wala barabam di taxaw di ñaan lu dul yàlla faj na say aajo te yàlla du def teraanga bu pare du koy jël façon tawat bu nekk jaar na ci buntam façon tiis bu nekk jaar na ci buntam waaye képp ku koy duggee rek sa tawat ak sa tiis jaax na te yàlla mu ko fa defoon ba léegi moo fi def te ñoom tamit ñaanul yàlla seen mbóot di naxasaay ñaan neen lépp du fa neexoon di continuer ñu tamit yaakusul ñuy jéem a góorgóorlu ba lépp loo xam ne ne suñu waajur ci la nekkoon rek ñu jéem a ci donte mu ñu àgg mukk ci seen i maqaama ak seen i taxawaay waaye dañuy fàttaliku laaya bi nga xam ne dafay wax ne walladina amanu wattabaatuhum duriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim duriyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay ci loolu la ñuy am rafet jot di jéemantu bu baax di kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk dalee ko ci xalifa bi Cheikh Amatiane Ibrahima Niass yal na yàlla guddal fanam delloo ko si jàmm dalee ko ci imam akbar yal na yàlla guddal fanam Cheikh Mouhamadul Mahi si laali Cissé Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Mouhamadul Amin demet Fatimatu Zahra mboolem jëbatu baay bi ñu ngi ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu di ñaanal tamit képp ñuy déglu ndax xam ne ne àddina bi ñu ñuy déglu ñu ngi ñaan yàlla jotaay bi yàlla nañu ko yàlla nañu ko bokkook ñoom lépp lu ko jëlee ci ngeneen ak barkeem yàlla nañu ko bokkook képp koo xam ne yaa ngi teewlu jotaay bi yàlla nañu ko bokkook ñoom di gërëm kilifa yi bàyyi ko bu nekk rawat nañu bàyyi ko ndukumaan sëñ taal wi laa ñëwut waaye rakkam a ngi nii teew ñu bàyyi ko Gambi ñu bàyyi ko Kaolack ñu bàyyi ko jox yi fa ko yëpp ñu ngi rafetlu seen taxawaay waaye di nuyu bu baax waa Kër Moussa yi Birane Sène a ngi nii di nuyu Oustaz Mbaye di nuyu sëñ Touré di nuyu ñëpp nag di ziyaara ñëpp di ñaanal ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam